jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb bàkk ba jib na générique bi départ na wasaare làmb tàmbale na ak bàyyi jiili ñu leen di siyaaraat bu baax a baax a baax di leen kontaanee di am mbégte ak kontaante di janoog yéen comme ni mu koy defee saa su ne jàkkaarloo yéen dafa may gën a neex gis naa message yi gis naa appel yi gis naa encouragement yi mais yéen a baax rek yéen a baax yéen a rafet xol yéen a jël wasaare làmb safoo ko def ko muy seen site internet numéro un loolu nag yàlla suñu borom moo ko dogal ndax euh, bëgg gi ngeen ñu bëgg gis nañ ko du jili rek mais wasaare làmb gépp dañu leen bëgg ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois mbokk yi ñuy jàllale benn information di jéggalu kenn koo xam ne wala di ko di ko di ko massawu kenn koo xamante ni dafa bokk ci làmb kenn koo xamante ni euh, njabootu làmb la koo xamante ni suñu kilifa la suñu papa la ci disponibilité saa yu ñu ko soxlaa gis ko ci suñu wet muy Pierre Boy Kayre agression ba nga xamante ne xew na fële ca këram mm, Tivaouane pël ñu koy massawu bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm te di ko ñaanal euh, yàlla na yàlla na ko suñu borom nit euh, bu doonee lu gën ci moom yàlla na yàlla na yóbbu ayam Pierre Kayre suñu papa la metti na trop ci réew mi fi mu toll nii mais ñuy ñaaxaat rek képp koo xamante ni euh, da nga bokk ci réew mi Euh, yor yenn yenn yenn jumtukaay yi euh, nga gën a fagaru rek parce que réew mi fi mu toll nii euh, toll na foo xamante ni métti na trop métti na trop liy xew ci réew mi diggante 19 heures ba 22 heures ba 0 heure métti na trop. ñu ngi ñaanaat gars yi ñu gën a renforcer sécurité bi rek euh, gën a ñaanal population bi képp koo xamante ni da ngay xëy dóori waar wàcc ñibbi sa kër gën a fagaru rek euh, gën a mën a teel a ñibbi ndax réew fi mu toll nii moom euh, macha allah daal macha allah ndax. bu ñu duggee ci wasaare jugee ci wasaare dugg ci boolekaare ñu ngi ñaan rek yàlla na yam foofu yàlla na yem foofu bañ mën a delluwaat ci seen activité po Père Kairé ñu ngi lay ñu ngi lay masawu baax a baax a baax l'ensemble wasaare bi ñu ngi lay masaw bu baax a baax a baax mbokk yi tey ñu bëgg a waxtaanee ci écurie bi nga xamante ni euh, mooy écurie yoof tey écurie yoof lañ bëgg a waxtaanee écurie Yoff bi nga xamante ni bari na ay ndaanaan écurie Yoff bi nga xamante ni bari na ay champion écurie Yoff bi nga xamante ni fi mu toll nii diggante daaw jéeg ak daaw ak ren ñu ngi def ay preuve yu am solo ci làmb ndax bu leen jaawale bu leen fàtte ni euh, sunu làmb door daaw ñoom ñoo ko jël écurie Yoff te bari na ci ndaanaan yoo xamante ne dañ leen doon xaar ci làmb te bëriwuñu wala gisuñu leen ku mel ni Malick Niang nga xamante ni champion la ci làmb Malick Niang nga xamante ni durant combat yi mu def yëpp benn défaite la ci am muy digganteem ak Ama Baldé bis boobu ba tey euh, Malick Niang gisaguñ ko mu tooyal xaftaanam te doomu yoof la te yoof am nañ ci moom yaakaar làmb aussi am nañ ci moom yaakaar ñu koy xamal la ci lépp lu mën a nekk na gën a yokkaat entraînement dugg si ci làmb te xam ne war na cee mën a am dara ndax écurie Yoff bari na ay ndaanaan yoo xamante ni euh, ñu nga fa euh, su ma commencé ci Malick Niang rek mën naa wàcc ci Modja Modja mi nga xamante ni champion la Modja mi nga xamante ni macha allah mën bërëm kenn du ko notable ci làmb Modja nekk xale boo xamante ni euh, champion la ci làmb Modja nekk xale boo xamante ni début ci làmb moom moom écurie Yoff mu fay def liggéey bi mu ci ayib parce que bu leen fàtte ni euh, Modja nekk nekk na écurie yoof mais nekk na fa ak ay moroomu xale ñoo xamante ni macha allah fi mu toll nii ku tudd écurie yoof tudd leen ci. boo bàyyee xel ci écurie Yoff boobu bari na ay ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi fa ku ci mel ni dumbul dumbul bu Yoff dumbul euh, bu duggoon ci làmb euh, nga xam ni kii mbër la mbër bu saf xorom. mbër mu mën a bëre mbër mu amoon talent ci làmb làmb yaakaaroon ko euh, yaakaaroon yoof surtout yaakaaroon ko ñu jàppoon ni war na mën a yóbbu drapeau yoof fu nekk ci làmb war na ko mën a yëkkati flambeau bi ba mu jóg ci kaw waaye gis nga ginnaaw jaam bekk pexem yàlla ak dogalam mu dem États-Unis toog fa toog bu yàgg waaye dégg naa ci ay mbokkam ñu ko jege nee nañ bàyyiwut làmb waaye làmb nag dafa doon sport boo xamante ni le fait que nga gëj a compétir rek day mel ni yaa ngi teggi sa tànk ci làmb ñu koy ñaanal la ci lépp lu mu mën a nekk yàlla defal ko ci jàmm parce que dumbul moom bokk na ci loo xamante ni histoire da koy nettali mbër mi njëkk a indi clavier ci làmb dumbul moo ko def indi clavier euh, indi orchestre am ci làmb euh, keroog stade Iba Mar Diop macha allah ba dumbul ba dumbul yëngoo keroog képp ku nekk ci tribune bi moo xam nga supporter double ak nga ñàkk koo supporter sa xol dafa sedd parce que da gisaat leneen lu bees ci làmb te làmb loolu la ñuy séentu ba tey ku ci nekk mu ngi indi clavier ci làmb euh, di ko di ko taaral ba mu taaral euh, bu ngeen xoolee bu ngeen jaawale Tapha Mbeur open press bi mujj moom it def na ko mu doon lépp loo xamante ne dafay yokk làmb rek mbëru yoof yi ku ci mel ni gin gin bu yoof gin nekk xale boo xamante ni moom it champion la ci làmb gin doon xale boo xamante ni mën na bëre ci làmb gin doon koo xamante ni yoof am nañ fu ñu ko teg te bu ngeen bu bu ko yoof amee fu mu la teg nga am malekaan boo xamante ni indi nga ko ci làmb faw ngay wane sa bopp te xale bi mu ngi ci euh, te yoof am na fu ñu ko teg euh, keneen ki mooy Ablaye Diop Ablaye Ablaye Diop Ablaye euh, nekk na xale boo xamante ni bàyyi leen ko xel moom ndax mbokk yi dama leen bëgg ni yoof am na ay xale yoo xamante ni fi mu toll ni ku leen tàggat gën leen góor gën leen a jàppale ci làmb fépp fu ñuy dégg champion ñu dégg ko fa ndax Malick Niang bu njëkk ba Malick Niang bu yoof tey Malick Niang bi numéro 2 donn na Malick Niang bu yoof ndax bu ñëwee ci làmb nga gis gabari bi gis taay bi su bëree nga gis mu safal ko ba mu saf moo lay wan ni yoof sampion yàgg na faa jóg caatu euh, ngéwal mu ngi mujjee bëre ci arène nationale donte après euh, bi mu fay génn ndam lay génne mais dañoo euh, euh, fils de Zallo daa dem dugal recours keroog yàlla mu dem CNG ñu jox ko ndam moom fils de Zallo mais teewul caatu njool wane na boppam wane na boppam bu baax a baax ci arène nationale xam nañ li mu mënee képp kuy seetaan làmb xam na ne xale bi am na jom jomu bëre am na fitu bëre am na caay-caay yu bëre bu nekk ci moom moom caatu njool mu am keneen koo xamante ni làmb fi mu toll nii dañ koy bàyyi xel muy caatu yoof caatu yoof mbër boo xamante ni bëri nga treize combats am ci benn défaite ki la daan euh, bokk na ci fi mu toll nii euh, ñi téye làmb simple bëre dóor bi ki démb gis nga kamu daan arène nationale euh, muy bébé Saloum muy franc Franc moo ko daan euh, bëri ci combat bu rëy ñoom ñaar ñu bëre fële ci stade Iba Mar Diop Franc daan Caatu Yoff mais teewul ba léegi Caatu Yoff mu ngi ci ci ci bi mu nekkoon moom nga xamante ni euh, xale la boo xamante ni Yoff tamit am na fu ñu ko teg euh, moom Caatu Yoff ak yeneen daanaan yoo xamante ni ku lim doo juum mais da nga matal Yoff nag dafa rëy. ndax tey boo boo bëggee classé doo doo wax ci équipe bi rek wala équipe bee mais da ngay wax équipe yoof maase ko parce que yoof am na ñaari équipe am na yoof ak yoof mbooloo waaye ñoom ñëpp dañoo booloo doon benn benn bi ñu doon moo waral munoo xam mbër mi nekk écurie yoof ak mbër mi nekk écurie Yoff mbooloo man mii di wax ak yéen damay am problème boobu parce que dama dama dama gis booloo bi ñu booloo doon benn mu munoo xàmmee entraîneur yoof ak entraîneur Yoff mbooloo euh, coach Babacar ma koy nuyu bu baax a baax a baax indil na ma ci ay leeral yu am solo macha allah ñu koy ñu koy jaajëfal euh, ñuy wax nii rek làmb fi mu toll nii moo toll foofu parce que bu ñu demee bay lim euh, li nga xamante ni mooy sunu làmb door bi daaw ñu dem indi ko jox ko waa écurie yoof moo lay wan ne ñu ñaax la boo xamante ni ñoom waa écurie yoof mu ngi koy def xale ya fa nekk ña nga fay def waaye nag euh, nañ gën a góorgóorluwaat ci seen biir nañ gën a yokkaat entraînement yi ci seen biir nañ gën a xam ne am na ay champion yu fa nekk am komba moo jabu mu ngi am kii di caatu booy bambara am ci yeneen xale yoo xamante ne am nañ combat foofu ci équipe ba di waaj ànd ceeg ay mbokk ànd ceeg seeni xarit ànd ceeg waa équipe yoof di waajal bu mbas mi jàllee rek incha allahu rabbi ñu dellu si waat ci li nga xamante ni mooy euh, bilan wu écurie Yoff mais nag bu ko defee dañuy dañuy tënk rek loo xamante ni euh, kii bi gudd na loolu mais dañuy tënk lu ndaw rek ci ki nga xamante ni mooy coach Babacar am na ci lu mu ci wax ci doomu Yoff yi euh, wane na ni wax que ne Yoff ñaari écurie ñoo fa am mais écurie yëpp benn la wax ko tënk ko ñu dem kàggu déglu ko su Babacar te dellu si waat plateau bi. waaw man la Babacar Diagne coach Yoff Mbooloo coach principal Yoff Mbooloo bon écurie bi maa ngi ko créé en 2012 2013 écurie Yoff Mbooloo yaa capitaine Dina caatu Yoff loobu Yoff euh, Tafa Gueye numéro 2 yaa il bu Yoff caatu Bawol moom mooy rakk booy Bawol bi yaa tamit euh, problèmes. boo xamante ni bon mi ngi si mbapat bi am na benn combat daaw daaw jéeg la bëre premier combat ren amoon na combat mais mbas mi moo tax bëreewu ko am na tamit Boy Joola boo xamante ni mi ngi si deux victoires deux victoires la toog di yaa tamit Balla Gaye numéro 2 benn Boy Joola la moom it yaa aussi euh, Demba Thiaw waaw benn Boy séeréer parce que ñaari Demba caw moo am Yoff bële am na Demba Thiaw man it am naa Demba Thiaw yor nañ si daal mbër yoo xamante ni si arène xam nañ leen waaw bu yoof bële tamit bon yaa Malick Niang Dumbul moo jëbu yoof Gine Petit l'enfant Seck Ndaanaan yaa aussi Caatu euh, Ngéwël bébé am na tamit beneen booy bu nekk euh, bébé Birahim mu ngi si écurie yoof bële am nañ tamit beneen booy boo xamante ni bon moom la ñuy wax euh, kii euh, ñu encore Demba Thiaw mooy Demba Thiaw waaw Demba Thiaw boobu yow war nga koo xam moom it mu ngi toog ci victoire xam nga ñu boole leen ñun ñëpp ñu nekk benn mais ku si nekk da nga téye sa kayitu écurie waaw waaw am na beneen booy boo xamante ni moom it mi ngi fël mi ngi si yoon bi di ñëw waaw parce que boo xoolee boo xoolee booy boobu daaw daal jéeg bëri na mu ñaan ko bébé ama waaw ñaari bébé ama ñoo am yoof am na bébé ama yoof mbooloo tamit am na bébé ama waaw yaa tamit Malick ñaa numéro 2 am na ñaari Malick ñaa numéro 2 bu nekk si yoof bële am ñaari Malick ñaa beneen Malick ñaa bi nekk yoof mbooloo xam nga écurie bële boo xoolee tamit am na presque 15 boo yoo xamante ni si dynamique de victoire waaw macha allah. bon te tamit am na treize boo yoo xamante ni Yoff mbooloo yoo boo yoo xamante ni tamit ñu ngi si dynamique de victoire waaw ñooñu ñëpp am nañ si yaakaar si ñoom waaw boo xoolee écurie Yoff bële am nañ plus de quatre vingt quatre vingt sept mbër ñu nit boo xoolee ñun am nañu plus de soixante sept soixante dix sept mbër yoo xamante ni yenn booy ay séeréer lañ ñu ngi si mbappat yi waaw ñu ngi àll bi quoi. boo xoolee am na treize boo yoo xamante ni Yoff Mbooloo ñoom ñu ngi si arène bi yoo xamante ni am nañ si ñoom yaakaar fële tamit boo xoolee am na quinze boo yoo xamante ni Yoff am na quinze boo yoo xamante ni ñu ngi si arène bi tamit ñu am nañ si ñoom yaakaar waaw. ñu koy jaajëfal bu baax a baax coach su Babacar Diagne moom mi nga xamante ni moo nekk écurie Yoff Mbooloo euh, leeral bi am na solo wax na ni. écurie bi mu ngi am quatre-vingt-sept mbër écurie bi mu ngi am soixante et quelques mbër moo lay wan ni yoof bari na ay xale yoo xamante ni macha allah ay jàmbaar lañ comme ni ma ko waxee sànq ci émission bi bari na ay xale yoo xamante ni ñu ngi dund làmb te ku wax euh, ëtt lébu wax làmb parce que boo demee yoof xam ne xale yi ci tefes ga la ñuy nekk di bëre bu ñu duggee géej génn nekk foofu di bëre ak seeni morom ci ci loolu la ñuy tàggatee mbër bëri na mbër yoo xamante ne doon nañ ay champion ci làmb foofu la ñu jaar nekk ci tefes gi dugg ci géej gi génn ñu tegal leen dara ñuy bëre di ko foowee ba tey ñu jàpp ne xale bi am na talent ci biir xale yi nañ ko génnee tàggat ko ku ko jàppale ci làmb mu doon champion mbër yi ci baree baree bare jaar nañ fa kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb deuxième partie bi dinaa ci ànd ak Ouzin ñu toog waxtaanee ci bilan écurie bi xamante ne mooy écurie euh, Langsar Langsar nag euh, tey moom xam naa ni dina neex dina yëngu euh, ci kanam tuuti ñu ñu dalal Ouzin su ko defee ñu waxtaan ci émission bi waxtaan ci jàngat làmb bi waxtaan ci écurie Langsar di leen di jox di daje ba ci kanam incha allah rabbi ci wasaare làmb ak jàngat làmb ak Ouzin ak Baye Djily ak kàggu cadre ak sëñ Basiru borom dëkk nectar bi ak soxna Mbène ñun ñëpp ñoo ngi fi di liggéey di leen jaajëfal jaa ngeen jëf ay ca